cadre unitaire syndical enseignement moyen secondaire di CUSEMS amal na ki tey ab débrayage bi 9h ci suba jotee li syndicat bi di ñaawlu mooy jàpp gi ñuy jàpp yenn enseignants yi ak yenn élèves ak itam teewaay takk der yi ci li nga xam ni moo di espace scolaire bi. ci biir loolu dañu ñu ngi jooylu di metti lu euh, arrestation quelques enseignants ñoo xam ne droit de faire la politique peut-être moo leen yóbbee yenn arrestation yi. képp kuy membre CUSEMS normalement war nga mën a suivre mot d'ordre bi ak sympathisants yi maanaam ñoo xam ne nekkuñu CUSEMS mais gëm nañu ne xeex bi xeex bu normal la xeex boo xam ne dañ ko war a def pour. CUSEMS jaare ci boobu boobule mouvement ngir amal yeneen doxu ñax bokk na ci ñu régler li nga xam ne moo di problème formation yenn enseignants yi. parce que dañoo gis ne par rapport a seen doléance yu ñu mës kaas am na yoo xam ne ba léegi état bi daf ci xaw a. am retard des conditions de l'enseignant les problème des MEPS maîtres de PS des profs de filo euh, formation diplômante euh, l'entrée administrative les vraiment problème bi dañu bëri telle sorte que tey ñu ni nañu avertir état bi comme ça au moins ñu mën a xoolaat euh, table négociation. muy mouvement d'humeur nag boo xam ne gënul ci ñi nga xam ne moo di élèves yi. ñoom nag ñu ngi xam ne nii grève yu bari yi day gàllankoor seenu programme. les profs ils mais. professeurs yi ñëw nañ. waaye ak débrayage bi nga xam ni waa CUSEMS si ñoo ko amal mujje wu ñu def ni ñu ñëwee noonu itam la ñu ñibbee. ils sont là mais il faut grève yi nag day am njeexital ci suñu calendrier dinañu mujjee prolongé date bi nga xam ne ci la ñu waroon dakkal li nga xam ne moo di cours yi. le retard qu'on a eu syndicat bi nag amal na bile débrayage ngir artu fas yéene nañu wéyal seen xeex bu suba jotee ndax dinañ amal li nga xam ne moo di ab grève générale.